eh mon collègue mon ami de longue date sama gayen waa sama waa ji ci loo ne. loo mu woy léegi ba ngay ñëw. mon ami mon collègue <laughs> sama waaye nga. loolu dara du ko dindi. collègue la ah. ah. yow daal yow pour yow li ñuy def nii du liggéey. Ah. yow ñu ngi yee dëkk bi. oh yaa am ambition dëgg passé laa dajeeg maire Ndeye Ngone si suuf mu ne man seen émission bi maa ngi nga xam ne kon ñun am nañ bës. am nañ bës de. bës de ah. yow kon téléphone bi ngay jël di si napp sa bopp di di dugal TikTok di kaa noonu di ma ci boole waare yooyu nga naan ay kii da nga yaakaar ne man damay damay comme sama kaa yi nii dama koy def nii nii gratuitement nii. ah ñoo ngi lay fay. maa ngi waaj am liggéey de. ñoo ngi lay ah. ah. fay si kaa yi nii fan yi ngay fen nii. xalifa am na liggéey bàyyi ñu fi. xalifa li mu def la xalifa li mu def la xalifa lu mu def su ma ko defoon am ah. liggéey. a ah, xalifa la la defati. gara garaaw du ma bàyyi mu bàyyi mu sedd. <laughs> waaw baax na waaye yow déggoo li xew si réew réew. dégg naa wax de tey suba ba léegi maa ngi xool ñii naan dem na ñii naan demul ñii naan moo ngi football si buntu këram. ñii naan ñii naan Mame Mbaye Niang kii. mais Sénégal man ñoom man man ma Sénégal xam nga lan la. Hmm. buñ la bëggee daaneel. nañ la daaneel quoi d'accord nañ nangu nañ. Hmm. mais yow nit ki nan nga koy woowee tribunal te joxoo ko convocation joxoo ko luy kan lay wuyu bu demee. ah la motif lay wuyu jee. mais mais tamit tribunal benn affaire am na Sénégal man parfois je me demande est-ce que s'il y a démocratie parce que le problème en est que citoyen ak ni mu mënti doon suñ la woowee tribunal tu dois maanaam répondre. waaw loolu dëgg la. mais kii du citoyen n'importe quel citoyen. non non du citoyen lambda du citoyen normal kii. c'est l'oppose c'est l'opposant parfait man temps yi moom laa àndal de eh. yow yow du xam normal mooy lan mooy yow Maguette Diop député fii la toog xam nga lu mu wax bu wuyu jiwul dañ koy jëli ji par force ne loolu loi si ban loi la non non non xam nga xam nga ñun déggoolu ma si wàllum démocratie boobu ma lay wax démocratie bi xam fan la fan la démocratie amatul fu ñuy woowee citoyen demul comprendre na un. beneen si côté état bi. mooy état soo woowee citoyen da nga koy bàyyi mu demee si sago boppam. munoo ñëw di encercler këram mel ni. Ah. fugitif boo xam ne xanaa xamoo ñoom ñoo ko defatul citoyen ordinaire. noonu. ndax man mii suñ ma woon tribunal tey jii nii suñu waa koñ kenn du ma kenn benn média du ma tal fii laay dem suñ may tëju xam nga lu ñu préparé Massa ci wax la hmm. xam nga drago oto yooyu di ndox yu tàng yi euh, li si sa waay jënd man sama problème mooy fooy jëlee information. Hmm. yow xanaa infiltrer état nga. man je suis je kaay ma wax la de nee naa la man damay am liggéey. commencé nañ maa woo. maa ngi postulé de. mais Mame Mbaye Niang li mu wax leer na. Mame Mbaye Niang nee na Sonko dafa yeb nit yi. nee na ko wooyee dafa war a ñëw nee na lan lay ndaw nee na su su nekkee am na preuve bi moom fan la juumee. fu mu ne rapport bi génn. mais nee na su nekkee am na am na preuve bi na ñëw parce que déformation la ko la ko la ko hmm. porte plainte diffamation diffamation la ko porté plainte mooy maanaam nga wax loo xam ne nit ki defu ko. loolu mooy diffamation. moom li mu wax li wax soo ko wax yëpp defu ko après mu dem si rapport bi mu ne rapport bi na ko génne saa waay génne rapport bi loolu moo tax procès am tey renvoyé nañ ko parce que munul nekk saa waay daa génne eh, hmm. bal la yor bal. gis naa ko bal basket. di football mu koy tël mu bal basket la doon football man Sonko man. ah man Sonko nag man xamu ne la. daanaan la daanaan booy parfois ngay bañ man jéem naa ko bañ ba sonn. bu bañ jéem naa ko bañ. ay journalam ay journalam ay journalam booyalee naa ko ba sonn. moom moo ñu war a wutal liggéey. mais si football boobu moom dama ko faax naa ko ci quoi parce que booy bi ni affaire gentleman la def quoi. xoolal sol kapis bi waaw xam man ancien jour laa. am naa bàyyi naa fu nekk football naa waaw. man sama koñ man dañ maa fa 1500 bi. cas bi bi xanaa xamoo any time yi ñuy def nii nii any time yi nii man maa ko njëkk def sama koñ. génnal li nga ne si loolu laa bëggoon a ñëw. any time yow xam nga ne mooy any time moo sama koñ maa ko njëkk a def laaj ma la demee woon. waaw bañ a nañ defaroon bañ a coppati defar meew ataaya teg. taamu jabar ma duur xool mooy temps yii ma ma duur sama baraay mag. ñëw toog taamu jabar. temps yii noonu xool xam na moo xewoon. waaw soppali zaa. xam nga <laughs> seet loolu moom la any time loolu la daan demee. <laughs> loolu la anytime waaye mais loolooy anytime. lan mooy anytime. anytime mooy sooy waaye ki mooy entraînement de vie de jeune garçon ou de jeune fille. Hmm. doo génn si li nga ne anytime pour sa raxool la la culture la waaye bu njaay savon bii. <laughs> saf na démb de. saf na sap. ah mais ah, bi mooy. ah loolu du any time de. man de su ma amoon sama loolu guddi time la guddi time dëkk bi tas nga naan yow boo wanee li nga war a jox sa jëkkër publiquement ku koy consommer. waaw nga fekk fi célibataire bu mel ni Khalifa amul waxaani amul àndoon. Khalifa amul jabar. amul dara guddi hmm. mu ne wéy yooyu. mais gars wax la liggéeyam bii nii takk jabar la si waaj. nee na du génn 2023. ñoo nekkoon boutique ba di ataaya. xalifa de benn tungu ne la bëggoon takk tungu ne bañ ma sama ka lay tax mais wax ma loolu sax wax ma loolu am na ama gars yi ñëwaat nañ si fi ñu nekkoon. di ñëwaat ray bi. bon loolu daa mën a ne. Sénégal loolu dañ ko ñu rey du n'importe qui. imaam la ñu rey imaam. xanaa daa yor xaalis. imaam taal wakaam. rey. yàggul sax kuñ ko kii. loolu génn na si dëkk bi waaye. loolu jeex na waaye lañ gisee kii si ay caniveau lañ gisee kooram. xanaa bi muy dem ja juma la wala jàkka. kenn kenn xamul kenn xamul instant yi ñoo ngi doog xamul mais Sénégal daal. ah dañ wax rek waaye yow tamit tu es cultivé de. man yooyu boobu xaw ma ko woon. loolu bëgg wax foofu. Ah. information yi temps yi moom. non nee ma fenkat la. déedéet. non non non ma fenkat la. bees. wax wax ma ko rek ma loolu ma la ko wax. waaw ah, ah, yow da ngay mer ne ma jógal ñibbi. jógal ñibbi ah, man xam naa la wala wala wala man wala bii baax nañ ko petit carré jaru grand carré. man dootuma ñëwati. man man ñàkk naa jom. wallaay asim da ngay ñëwaat. wallaay asim da ngay ñëwaat. Hmm. wallaay boo yaakaaree gisaat ma fi wallaay da ngay ñëwaat. wallaay boo yaakaaree te sam portable daa wadd boo gisee. sa portable daa wadd. fu mu wadd. ah si koñ bi de man day. wala 24 kenn du ko saa dinañ ko indi. ndeysaan xool kaak doo xooli kii ñàkkee jom fexe ba bul bul dugg si douche bi naga ah te lu bon trop